gars yi nee nañ ñu wax la danga jël amaa Baldé. man xale yëpp. xale yëpp laa la wax. bàyyiwuma benn xale. mais dama déggoon ne doo bëree Ama ak Lac de Guiers wala. non non non. Hmm. Lac de Guiers laa waxoon bëri. Ah. te dafa am lu ñu liyee man ak moom. Hmm. mais ginnaaw Lac de Guiers ñëpp lay bëri. Hmm. yàgg naa wax cinq ci ginnaaw nañu ubbi bunt yi si kaw. xale yi ñëw yéeg renforcer fa. parce que dafa manqué woon ay poids lourd manqué woon li ñuy ay VIP. Balla Gaye may na may booy Niang chance dugg na. Hmm. man may naa Reug Reug chance dugg na. Gris Bordeaux may na chance Ama Baldé dugg na. Hmm. Ah, léegi nag ñi ñuy tudd ay VIP. Hmm. nañu may yeneen booy yu chance booy ñëw fekk si leen si kaw ku si réussir. dugg ku si réussir wul delluwaat. kii mu ne ngir yàlla xam nga Sa ñëw na def examen jàllul. waaw. ah. ah da dañu ñëwaat essayé examen. Sa Thiès daa redoublé. Ah, te da nga jàpp ne war na mën a defaat examen si yow. daa redoublé. comme moom seen daan na ko mu redoublé. waaw <laughs> na ñëwaat def examen fii. Mhm. ba xam ndax day day day redoublé waat. <laughs> da koy def pour jaay événement. Mhm. boo seetlee depuis Aziz génn ne empereur. Mhm. ba léegi gars yi <laughs> empereur la ñuy wax ay roi. donc da koy def juste communication la pour pour jaay événement loolu loolu loolu loolu loolu commentaire waru bëri sax.